mi président Bassirou Diomaye Faye ak njiitu gouvernement bi du Ousmane Sonko li leen di xaar ak li ñu yaakaar si ñoom dafa bëri lool mu doon nag yu rëy waaye doxal nguur dafa am yu mu laaj si wàllum politique te dafa am tam ay raayal te boppam patriotes yi ñoom seen bopp ñi ci ay front yu bëri ndax dañu war a taxawal benn stratégie boo xam ne dafa jëm ci développement bu laal fépp te sax taxawal tam ay plan yoo xam ne dañ si gérer yi gën a jàmp maanaam urgence yi tontu tamit pression yi nga xam ne askan bi maanaam citoyen yi ñi ngi koy def di ko xaar ci nguur gi ak tam waa société civile li ñuy xaar ci nguur gi loolu yëpp ñu war ci tontu ba ci sax partenaires yi nga xam ne ne ñooy indi koppar mu mel ne kon lépp a jàmp ci wàllum politique ci wàllum social ak ci wàllum économie loolu yëpp ñu koy xaaree nguur gi syndicaliste yi tam taxaw temm di waajal ñoom itamit gën a fësal seen ay revendications daanaka xaaruñ sax premier mai loolu yëpp tam état bi bu ci dollee wàññi njëgu dund gi nga xam ne askan bi ñu ngi koy xaar ak ba si sax location yi ak lépp loo xam ne dafa tëggu ci ndodd góorlu bi ñoom ñu siy xaar nguur gi ak tamit ndaw yi nga xamante ne xëy rek la ñu bëgg ak ñu tàggat leen ci loo xam ne dafa dëppoog li entreprise yi di xaar urgence yi maanaam li jàmp teglontoo ba lépp mel ne urgence la fii ci Sénégal loolee nag nguur gi war ko lijjanti dëppale ko ci li nga xam ne moo di rupture maanaam li woon wonni te ñu woote ko waaye loolu dafa laaj njiitu réew ak njiitu gouvernement bi liggéey ko ak stratégie ñu moytu nag piège yi nga xamante ne dafay am ci bu ñuy lijjanti urgence yi maanaam yi nga xam ne dafa jàmp waaye yenn urgence yi mel ne ñenn ñi seen bopp rek la ñuy doxal loolu yëpp nguur gi tam war si bàyyi xel jafe na sax ñu def wuute diggante li nga xamante ne urgence la ak li nga xamante ne nit ñi seen bëgg-bëggu bopp kese moo leen tax a jóg urgence moom dafa ànd ak ay pression ci fànn bu ne muy syndicat yi muy askan bi muy sax ba ci woy politique yi nga xamante ne ne nguur gi dafa war a dox ñoom si seen ay